ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey ñuy waxtaanee ci enquête bi média BBC Afrique fësal ci affaireu Frank Timis bi Aliou Sall ak société bi ñuy dippee BP enquête boobee nag ñu dippee ko scandale à dix milliards de dollars di ab njombe bu rëy boo xamante ni nag dañuy souligner du lu bees parce que Ousmane Sonko fësaloon na ko ci ab livre Clédor Sène defoon na plateau yu bëri expliqué cas boobu noonu ay dara moom itam def na ay live yu bëri ci leeral dossier boobu noonu. xëy na peut-être li bees ci enquête bi bi BBC def mooy yenn preuve yi ñu indi ci contrat yi Aliou Sall signé ak Frank Timis papier yi ware alal ju takku ay milliards de francs CFA yu Aliou Sall jot ci deal bi nga xam ni def na ko ak Frank Timis te ki ko signé di Macky Sall moo ko décrété xëy na looloo bés ci enquête bi mais loolu lépp dina leen ko leeralal ci vidéo bi wala leen dossier yi papier yi contrat yi virement yi mu nekk ab traduction en wolof ci enquête bi BBC def parce que dañuy leeral du suñu liggéey liggéeyu BBC la mais dafa am ay abonné yu ñu sollicité gannaaw ba ñu publier enquête boobilee ngir ñu def ci vidéo en wolof ngir leeral mbir mi naka la demee donc mu nekk ay explication yu simple pour ko ku ci nekk mën ko taataan mën a xam lan moo ci ne ci nu mu gën a yombee ba mu clair ci bopp sénégalais yépp ci début enquête bi BBC dafa tàmbali ci présenté kuy Franck Timis Franck Timis di ab homme d'affaires di doomu Roumanie moom nag bokk ci ay opération minière yu bari fii ci Afrique waaye nag ay opération yu lëbëjoo maanaam ci mbuxum ak turiande booy xool entreprise yi nga xam ne nii am na ko yu ci bari dañ leen joxañ baaraamu tuuma ci ay ñaawteef parce que Frank Timis dafa am benn stratégie bu muy teg ci réew Afrique yi mooy day ger ay politiciens yi nga xam ne am nañ ay ndombal tànk yoo xam ni contrat yi mu bëgg wala marché yi mu bëgg a gañ ci dëkk yooyu noonu da leen di ger pour que ñu yombal ko contrat yooyu noonu tuumaal nañ ko ci ay dëkk yu bari rawatina Afrique de l'Ouest te tamit ràññe nañ ko ci def ay ñaawteef jëmale ci tout tànk yi dëkk yu bari def na fay ñaawte fi dul jeex gis ngeen ci photo yi nii mu ànd ak président Sierra Leone ak Burkinabé donc miin Afrique la xam Afrique nu muy doxee di lal nag ay plan xool naka la ciy génnee mais lépp rek ci jubadi ci vidéo bi nga xam ne nii nag BBC réalisé na ko journaliste bi booy xool dafa dem ci nit yi nga xam ni xam nañ Frank Timis mais tamit maîtriser nañ dossier bi ñeel pétrole ak gaz rawatina nag kaawu Sénégal maanaam li tubaab naan les bonne personne moom nit yooyu la am sëkk ak ñoom waxtaan ci affaire bi le kenn ci doomi aadama yooyu noonu muy Philip Cadwell moom da doon gérer benn trust offshore opat bu Frank Timis moom maanaam boo xoolee li ëpp ci alalu Frank Timis moom moo ko doon gérer mooy waa ji ngi di gis ci écran bi bi ko ndaw si def enquête bi interviewé moom sax dafa yéemu ci anam gi dossier Frank Timis bi amee fii ci Sénégal digganteem ma Aliou Sall rawatina contrat bi nga xam ni accordé nañ ko ko. en 2012 Frank Timis dafa créé benn société tippee ko Petrotim Petrotim boobu noonu réewum Sénégal daf ko jox ndogal ngir mu seet bërëb yi nga xam ne njort nañ ni am na pétrole ak gaz zone yi ñu ciblé woon mooy ci géeju Sénégal yi mais li yéeme ci autorisation boobu nga xam ne réewum Sénégal jox na ko mooy Frank Timis ak entreprise boobu noonu nga xam ne créé na ko amuñu benn expérience ci li nga xam ne nii mooy wàllu pétrole ak gaz d'ailleurs mbir boobu noonu moo taxoon au début ñu bari seen xel commencé woon tey parce que xam nañ ni lii ay naxaate la ba tey ci enquête bi BBC def Abdoul Mbaye nekkoon fi premier ministre intervenir ci di xam na ni effectivement entreprise bi Frank Timis créé muy waru ñu ko woon jox autorisation ngir mu explore xool ba xam pétrole wala gaz am na Sénégal parce que amul benn expérience ci domaine boobu noonu expertise am ci domaine boobu noonu amul dara lu ko mën a prouver moo xam ci wàllum seet bi ba xam am na fekk amu fi moo xam ci wàllum exploitation bi maanaam buñ ko gisee naka la ñuy def bu doomi aadama bi mën cee jëriñoo amul benn xam-xam ci ñaari domaines yooyu mu amaat tamit beneen mbir Philip Kadewel bi nga xam ni maîtriser na dossier yooyu noonu moom nee na mbir mi daf ko bett parce que li tax mu bett ko mooy jamono ñuy jox Frank Timis ngir mu explorer zone yi ñu njort ni am na gaz wala pétrole amoon na ay société britannique yi nga xam ne nii dañu coté en bourse maanaam am nañ dayo am nañ notoriété ci wàllum pétrole ak gaz postulé woon nañ ngir ñu accorder leen loolu noonu mais amuñu concession bi Petro-Tim lañ ko jox bi nga xam ne amu ci benn expérience loolu ba tey di wundu lëñbët ak def ñaawteef yiñ naroon. ba tey ci vidéo bi ñuy fàttali Macky Sall promesse yi nga xam ne nii defoon na ko maanaam biñ ko doon soog a fal mu ne day taxaw temm xeex lii di guerre ak détourné ak lekk alalu Sénégal ci lu jaarul yoon. te pourtant bi mu waxee loolu nit ñi tàmbali woon nañ ko gëm parce que dafa falu rek ne ñu def enquête ci marché bi nga xam ni jox nañ ko Frank Timis gannaaw ba ñu defee enquête yooyu noonu dañu ne. concession yi nga xam ne moom la ñu accordeel Petrotim dañ ko war a retirer parce que teguñu ko fenn mais li bett ñëpp mooy Macky Sall après dafa autoriser Frank Timis mu garder concession yi boo xoolee après loolu am na ay manifestations yu fi amoon le 14 octobre 2016 ngir ñaawlu ndogal bi Macky Sall jël maanaam accordeel Frank Timis ngir mu explorer zone yi nga xam ne ciblé nañ leen. mais fan la mbir yi leeree fan la ñu xamee ni mbir mi ab dil la bu làqu ci ginnaaw Frank Timis dafa nommé ab post bu am solo Aliou Sall bi nga xam ni mooy rakku président ci industrie énergétique bi nga xam ni teg na ko jox ko fa post lan moo tax nag mu embauché ko ba tey ci enquête bi BBC def Abdoul mbay di expliquer que ni parce que xam na ni bu ko fa defee te am conflit d'intérêt Macky Sall dina ci gagné Aliou Sall dina ci gagné moom itam. léegi bu fa tegee rakkam décret bi nga xam ne Macky Sall moom la war a signé pour que Franck Timis mën na explorer zone cible yi day gën yomb da koy signé automatiquement te boo xoolee loolu moo am après Franck Timis dafa recruter Aliou Sall ci biir groupe bi mu créé automatiquement Macky Sall day signé contrat bi. mais BBC yamul rek ci ay kàddu dafa joxe ay preuves wane ay documents yu wane ni Aliou Sall ak Franck Timis dañu signé contrat contrat bi moo nekk nii ci vidéo bi ngeen di gis papier yaa ngi nii contrat bi dafa wane ni moom Aliou Sall dañ ko doon fay vingt cinq mille dollars maanaam quatorze millions fukki millions ak ñeent lañ ko doon fay par weer diiru juróomi at bu ñu calculer loolu lépp toll na ci un virgule sept millions de dollars maanaam neuf cent quatre vingt dix neuf millions six mille de francs fa presque un milliard Aliou Sall gagné na ko ci contrat boobu noonu. mais yamu ci Aliou Sall Frank Timis daf ko promettre ay actions yu toll ci 3 millions de dollars maanaam 1 milliard 764 millions de francs CFA gannaaw deal bi nga xam ni conclure nañ ko. loolu corruption mënu ko weesu. ba tey BBC yamul ci loolu dafa dem woon contrat bi benn spécialiste boo xam ni moom te yëngu ci wàllum affaire fraude ak corruption ñu koy tuddee Jeremy Carver. bi ñu ko wanee spécialiste bi moom dafa ne quatorze millions de francs CFA yu ñu doon fay Aliou Sall chaque weer dafa ko sax jaaxal parce que Aliou Sall ci boppam xamul dara ci wàllum pétrole ak gaz mook Frank Timis ñooyam kon naka lañ ko mën a fayee somme boobu noonu en tant que consultant alors que moom jàngul loolu Aliou Sall moom journalisme la jàng te journalisme sax bokkul ci ñi nga xam ni def nañ ci ay jaloore daanaka Sénégal yu bari bëri xamuñ luy liggéeyam xamuñ ban formation la def mais journalisme la def te bokkul woon sax ci ñi nga xam ne ñoo ci gënoon xarañ kon yow la nga jàng amoo ci xarañte gi war sax ngay dem di dugg ci gaz ak i pétrole bal la ciy fay vingt cinq mille dollars maanaam quatorze millions de francs fa moo tax consultant bi bi ñu ko laajee ci question boobu noonu mu ne daf ko bett trop mu dolli ci ne paiement yooyu nga xam ne Aliou Sall jot na ko mën ñu ko dippee lu dul guerre corruption mbuxum ñu ñëw ci atum 2016 ñu découvrir li nga xam ne nii mooy gaz ci zone yi ñu ciblé woon ba ñu gisee gaz ba pare mu am mbetteel Frank Timis jaay li nga xam ne mooy ay paaram entreprise bi ñuy dibee BP BP ci boppam moo jënd participation Timis Corporation lu toll ci deux cent cinquante millions de dollars maanaam cent quarante cinq milliards huit cent vingt deux millions cinq cent mille de francs CFA la ko jëndee. mais yamu ci de am na leneen lu gën a garaaw lu leen di wan Frank Timis ba mu jaayee paara bi ba pare dafa am ci vente bi contrat de redevance maanaam ay xeetu mbaqus lañ ko mën a tuddee maanaam ñeent fukki at yi nga xam ni mooy ñëw. entreprise bii di BP day verser Timis Corporation maanaam Frank Timis neuf jàpp douze milliards maanaam juróom-ñeent jàpp fukk ak ñaari milliards de dollars te chiffre yooyu noonu mosuñu ko révéler kenn mosu ko xam sénégalais yi mosuñu koo yëg loolu ab xeetu ndàmpaay la. léegi nag gannaaw dil bi ñu ne dañuy jéem a nax BP ci ab communiqué mu ne seen investissement boobu noonu. day amal ay avantages ay njëriñ réew bii di Sénégal te ne dinañ teg ay matukaay yoo xamante ne nii lépp luy corruption wala ay mbir yu jaarul yoon dañ koy xeex mais loolee lépp amul parce que document yi BBC Afrique fësal BP ci boppam xamoon na payoor gi Frank Timis doon fay Aliou Sall pour que ñu comprendre BP moo làqatu woon ci ginnaaw Frank Timis te bépp transaction bi ñu def corruption bi ger gi ñu ger Aliou Sall signature Macky Sall bi yëpp ils étaient au courant xamoon nañ ko ba période bi ñuy conclure contrat bi de façon symbolique te loolu booy xool spécialiste bi di Daniel Balint ci biir enquête bi def na ci intervention ñaawlu na taxawaay bi nga xam ne BP am na ko ci ngemb bi mu ngemb Frank Timis ñu làqu ci ginnaaw dil boobee yëpp def seen jeu ba lépp sotti ñu ñëw bëgg ñu gëmloo leneen après loolu BBC jéem a interviewé PDG wu mais biñ ko jéemee interviewé moom ngeen di gis ci image yi nii dafa lànk ne du tontu ci laaj yi nga xam ni BBC mi ngi ko doon laaj yéen a ngi gis ci image yi journaliste BBC bi topp ko di ko laaj ci kaawu aline Sall bi di ko laaj ci contrat yi mais faalewu ko nangu ci tontu. Sénégal ay délinquants yu mag la ñu amal affaire. après loolu Frank Timis ci kàddu ay avocat am tuuma bu ñu sukkandikoo ci ñi koy layal accord bi am. ci gaz bi ñu gis Sénégal dina tax suñu réew am wala encaisser ay milliards de dollars yu bari te loolu at bu nekk ñu dolli ci ne ñoom avocat wu Frank Timis yi ne Frank Timis booy xool investissement bi mu def ci Sénégal sax dafa risqué maanaam dafa jël ay risques jël alalam def ci te wóorul woon ni sax pétrole wala gaz dina fi feeñ alors ko loolu lépp amul woon bi ñuy explorer xamoon nañ ni zone bii dafa am pétrole am gaz amul sikki sàkk dafa leer. ñu ne waaw def na ay sacrifice am indi ay expert fexe ba acteurs majeurs yi intéressé wu ci Sénégal mais avocats yi li ñu wax noonu taxawul parce que ci enquête du BBC bi dañu wane ay paiement yoo xamante ne nii amal nañ ko te loolu lépp corruption la image yi ngeen di gis benn email la bu ñu envoyé Trust Offshore bu Frank Timis bi ci email bi ñu ne dafa am ay bor ay taxes yu ñu ameel gouvernement sénégalais te Frank Timis day sàkku ñu jox ko deux cent cinquante mille dollars maanaam cent quarante sept millions de frances CFA pour ko ñu fay bor boobee. mais document yi BBC fësal mooy xaalis boobu noonu Frank Timis sàkku woon jëmul woon ci Sénégal benn société privée lañ ko versé. te société privée boobu noonu mi ngi tudd agritrance agritrance boobu noonu kan moo ko moom Aliou Sall di rakku Macky Sall te après loolu versé waat nañ ko yeneen somme yu toll ci cent quarante sept millions de francais CFA yooyu yëpp du ay sos papier yaa ngi nii BBC Afrique moo ko fësal moom ngeen di gis nii transaction yi versement yi email yu ñu échangé yëpp a ngi nii dafa leer. ci partie enquête bi fii ngeen ci gis Philip Caldwell bi wane ni entreprise bi ma leen wax cinq muy Agritrans Aliou Sall moo ko moom papier wu entreprise baa nekk nii document yi moom ngeen di seen donc cent quarante sept millions yooyu noonu. ak yeneen yi ñu ko envoyé waat yépp ci société bi Aliou Sall créé lañ ko jagleeloon. te liy yéeme ci dossier bi mooy xaalis boobu noonu dañ ko présenté comme taxe mais doomi aadama wala ab entreprise privée naka lañ koy fay ay tax taxe sa kay buñ koy fay état du Sénégal lañ koy fay askan wi jëriñoo ko. loolu lépp di wane sàcc mbuxum ak jëfin goo xamante ne ni dafa ñaaw même ci gisin. comme niñ koy defee saa su ne rek ñoom avocat Franck Timis weddiwaat ni seen client mosul versé Aliou Sall li nga xam ne nii mooy xaalis ñu ne maanaam Timis Corporation mosul envoyé xaalis Agritrans bi nga xam ni Aliou Sall moo moom. BBC ba tey ci seeni enquête ñu prouvé benn saisie ci registre comptable ñoom seen entreprise muy. Timis Corporation te ci registre boobu noonu dañ ciy gis deux cent cinquante mille dollars yi ñu envoyé woon muy cent quarante sept millions de francs CFA ñu envoyé woon société Aliou Sall bi te BBC bi ñu vérifié compte entreprise boobu noonu dañu gis que ni paiement bi société Aliou Sall bi lañ ko envoyé muy Agritrans donc li dafa leer amul lam-laame papier yaa ngi nii ngeen gis te preuve yi yëpp day wane ni ndeysaan sénégalais yi ay milliards de dollars waxuñu ay milliards de francs CFA mais ay milliards dollars yi sénégalais yi moom lañ jël sacrifié ko mu nax saay Frank Timis moo ci bénéficié wu ak entreprise bii bii BP ak Aliou Sall ak Macky Sall ñeenti acteurs yooyu noonu ñoo sekk mbir mi xëy na peut-être am na ñeneen ñu ñu xamul mais ñoom ñoo fës. donc lii lépp liñ ci mën a jàngat mooy amuñu njiit yoo xamante ne nii dañu bëgg seen réew dañuy sonal ak ay discours mais seen yéene mooy askan wi. dee ci ndool ngir lan saa yu ay élection ñëwee ñu ñëw neexal leen ay 2000 francs wala may leen ay ravitaillement pour defal leen maanaam ñoom bëgguñu askan wi moomal seen bopp bëgguñu askan wi am parce que xam nañ ne askan wi bu moomee boppam rek duñ ko mënati tënk te ñoom tënk askan wi mooy seen yéene. moo tax ñi nga xam ne nii xam nañ Macky Sall ak ñi mu àndal ak njabootam xam li ñuy def ci njombe fii ci biir réew mi mënuñu ànd ak Macky Sall Macky kenn bañu ko mais ñàkk am cofeel bi nga xamante ni am na ko digganteeg sénégalais yi te defuñu ko dara le fait que mu jël nguuram bëgg ci profito am alal moom ak njabootam pare dem France toog fa di gundaandaat loolu lu ñu mënte supporter waxoon nañ ko ci benn vidéo xeex Macky sàll dafa mujj dem ba nekk sax jaamu yàlla parce que nit koo xamante ni da ngay kompaloo sa réew koo xamante ni da ngay ñàkkuloo sa réew ay milliards yoo xamante ne nii mënoon na xeex ndóol ci biir réew mi ku xoxatal sa askan kooku noonu yaa yées ci doomi aadama yi léegi nag lii am am na ñoo ko gisandoo ñun nag duñu tàyyi ci di yee sénégalais yi tant ñu ngi koy mën rek dañuy woy di ko def mais li leer ba leer mooy Macky Sall bu mandat am jeexee bu fi jógee dinañ ko topp ngir lan haute trahison maanaam war sa askan rakam ji nga xam ne ni yaakaaroo na ni bu asamaan si di wàcc sax bu teeku dinañ ko tëj kaso mu delloo ñu suñu alal ba dërëm bi ci gën a ndaw lépp lu ñu teg ci ginnaaw askan wi yàq suñu réew jël suñu alal di ko rawale dinañu ko fay bu soobee suñu borom.